acca acca sama gars yi acca action nañu off musique bi waaw waaw baax na aha sama gars yi ziar ziaratan mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo eh, di leen wax ne tey si dañ déplacé waa ñëw ba fii ci eh, Tëngéej ñoo ngi cew leen plus précisément ñoo ngi Médina seen eh, seen open press open press kan tey ñu ngi ñëw teewee l' open press de Karbala Karbala bu Tëngéej nekk pensionnaire de l' école de Songane Gueye tey la jeudi tey la jeudi 13 juillet 2023 ñu ñëw jàkkaarloog moom def na séance de boxe couvrir nañu entraînement bi li ci des instant bi mooy séq ak moom question réponse micro bi nee na micro bi waay ñu dem sant yàlla julli si yonante bi di sant suñu ñaari waajur di sant waa Tëngéej gépp di sant waa Mbaaw waa Caaroy waa Barni di sant Marina Thiawlène Kastoor Arafat Jaloore Lendeng Colobane Coxo Dangu ah maa ngi ziar ñëpp di bëre waa di bëggee waa Jokkul bu baax a baax a baax a baax di ñaanal suñu maam Amsata Fall suñu maam di ko ñaanal gudd fan ak wér maam loo gën a dund ñu koy gën a yëg dundal ba say may di baawaan a booy Fall yaaram mu ngi lay ziar loolooy nuyoo bi waaw loolooy nuyoo bi waaw mais micro bi gars na ñëw waay ah. waaw Karbala Karbala tey da nga woote open press mm. tey la comme ni ma ko waxee tey la jeudi 13 juillet 2023 mais est-ce que xam nga ni instant bi ngay open press sa adversaire ñu gën ko xam ci Feugeula bu Ngor mi ngi open press fële ca euh, ca Ngor mu nekk combat boo xam ne ñu ngi koy xaar dimanche dimanche 16 juillet 2023 mu war a nekk à national nationale est que xam nga ki nga jël est-ce que xam nga ki ngay bëreel est-ce que xam nga Feugeula bu Ngor Feugeula bu Ngor xam naa ko bu baax xam naa ko bu baax a baax a baax a baax a baax mbër la champion la ndaanaan la góor yàlla la ñeme na te man loolu laay war si mbër adversaire de taille laa bëgg te li li qualité yi ñuy gis si mbër yëpp mu ngi si moom waaw koo koy fëgal la kon gis nga ay qualité bu baax a baax ndaanaan la champion la bërekat la xeexkat la ñeme na kon yow xool nga bi ngay jël combat bi xool nga xool naa amul dara lu ma lu may lu may lu may xam nga ki nga jël parce que man maa man maa bàyyi lépp maa bàyyi jàng. maa bàyyi liggéey mécc. dugg ci làmb. Hmm. amul dara lu may moytu. waaw d'accord tey ñu ñëw fi open press bi nga wane di genre ñun ay lébu lañu piir ay lébu lañu wane nga culture lébu. Hmm. wane nga tey loo xam ne ci open press man c'est la première fois ma koy gis nga indi gaal ndeysaan dugg ci gaal gi joow ndeysaan gaa yi xëpp la soow mi ndeysaan ngay ñoddi di genre ay lébu lañu mais est-ce que xam nga ni combat bi c'est le duel des Karbala loo doon doon doon doon doon lébu mënoo doon lébu ba gën a doon lébu fëgala bu ngor combat bi c'est le duel ñaari lébu ñoo daje est que xam nga loolu non man nangul naa ko lébu mais moom na ma nangul sama lébu quoi lébu si nday lébu si baay maay lébu noon la fa demee waaw man nangul naa ko a fi ma bëgg a waxee ak yow mooy fëgala bu ngor loo ko bëgg a jaay mën na koo jënd man fa laay waxee ak yow dégg naa fa nga waxee nu ma ko bëgg a jaay mën na koo jënd lu mu andi ma wecci ko ah lu mu andi nga wecci ko ba ngaa dégg dëgg dégg naa la fëga la baam loo andi ma wecci la incha allah si kàttanu yàlla ndiis bi suñu ndiis la te dañ koy jëli bu soobee yàlla ndiis bi sa ndiis la te dañ koy jëli suuf si waaw mais avant tout mhm. est-ce que préparation combat bi jaar na yoon sa préparation yow sa côté est-ce que sa xel dal na ci bu baax a baax a baax a baax a baax billaahi wallaahi tallaahi donc préparation bu ma bu ma amoon lenn lu may tuddee si làmb ji rek wallaahi ma annulé làmb ji da nga pare pare fépp bu doon léegi nga xam ne pare naa pare fépp bu doon léegi nga xam ne pare naa dimanche maa la ñu tuuti maa la ñu tuuti dimanche dimanche arbitre bi la génn seen diggante dimanche arbitre sifflé génn seen diggante fëgala bu ngor ne la Karbala kaay ñu bëre looy def bu la ne kaay ñu bëre bu la woowee ci bëre looy def avant tout maa ngi bëgg Baye Fall waa fay yéen rek laay topp parce que Serigne Bamba di di bëgg waa mbaal mi waa mbaal mi aussi tamit booy waa mbaal mi seen fay billaay walaay waa tous tasar ñoom Pape Samba aussi tamit booy jakarta yi maa leen di bëggee yéen ñëpp nañ def mobilisation bàyyi ba fin bi nga bëggee bàyyi ba fin bi nga sant gërëm dama ne bu arbitre sifflé génn seen mu wala ci bëre looy def est-ce que nga na waaw bindal nga denc bu la woowee si bëre looy def bindal nga denc waaw fëgala bu ngor waaw ki la man kaka man maaka man ba yegg si fuuf loolu laa bëgg nga xam ko ki la man kaka man maaka man ba yegg si fuuf te jour le jour di incha allah dinaa la wan loolu bu arbitre mu ne la kaay ñu xeex bu arbitre sifflé mu woo ci xeex. lan ngay bu boobaa mu woo mu si lakkum njaabo yi. bu boobaa ñu xam ne. bu boobaa. na si lekkum njaabo yi. woowee ci xeex. déggoo ma. bu boobaa. waaw mu xam ne woo na lébu si lakkum njaabo yi ak ay kibaaro. Garba Brou. ñu ngi leen di nuyu bu baax di am kontaante ak mbégte di teew fi nga xamante ne mooy Médina fii buñ fi teewee xam ne Karbala mu fi dëkk moo daan ñu ñëw fi Karbala yaa ngi jëm ci bés bu am solo muy dimanche le 16 juillet 2023 fële ci arène nationale Diofi production moom moo ñu fowoo Karbala sa diggante fëgala bu góor fan nga toll ci wàccaay bi. pare naa pare pare pare laa wax. amul toll waajul daa pare. pare naa. ndax xam nga fëgala bu góor. xam naa ko bu a yi muy dajel da lay attaqué duma la daan la ndax pare nga pour. benn la mas a daanu. benn yoon la mas a ci làmb. dëgg. waaw. combat bi bëreewu ma moom. maa ngi lay wax nag pour yow ay caaxaan la bëreewu ma ak yow dama ñëw pour duma la. xeexuma ak yow dama ñëw pour duma la xam nga kan ngay xeexal sa morom man duma sa morom xam na duma pare nga ci wàllum xeex bu la fëgaloo ngor bu wooyee ci xeex xanaa looy déggee nee naa la pare naa fépp na doon tay dama yàkkamti la seize barki borom Touba dama yàkkamti la seize Karbala nga woote open press monsieur le maire Omar Cisse ñu gis ko fi l'international footballeur Paka Boy ñu gis ko fi loolu bari yëg-yëg lay am ci yow. waaw dañu ma yokk jom yokk ma ngar mi yëngal sama deret parce que nit mbokkam nit mbokkam te monsieur le maire suñu papa la kooku du sax suñu maire rek yem si mhm, mhm. suñu papa la Omar Ciss ñu ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax di ka sant parce que dafa oyof ñun Rio Tëngéej yàgg nañ jooy maire bu mel kii nii Omar Ciss mhm. bilaay walaay fuñ ko woowee gar dañuy jël même bu ñu jëlee après dinañu dinañu dinañu rappeler kon maître Oumar Ciss amuñu fayam honorable député ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax di la gërëm Paka Boy l'international bi Pi Boy borom 99 bi yow rek la ñuy topp kooku kooku kooku mooy vrai doomu réew dafa créer ay emploi xam nga ay mamam yaa ak yeneen ak yeneen yeneen ak yeneen moom moom tëngeej rek lay topp di ko sant bu baax a baax a baax a baax di ko gërëm may nañu xaalis bu bëree bare bare bare bare bare Babacar Ndiaye aussi tamit président TSP ñu ngi koy sant di ko gërëm may nañu xaalis bu bëree bare bare bare jox ñu ñu sañse si bés bi xam nga di ko teg si loxo pabi ak Seydina di leen wax ne kontaan nañ bu baax a baax du fond di cœur aha akat tey ñu gis benn mobilisation bu am solo fii ci Médina ñu gis fi champion yoo xamante ne gëjoon nañ leen gis ci tey Karbala tey open press bi wane na Tëngéej amul écurie Songane Gueye amul écurie Lebu gi tey boo leen xewlee champion yëpp ñëw teew lan mooy secret Karbala ba bu xewlee Médina yëpp génn nii en masse. avant loolu damay sant sama mbokk mëri sama grand frère yi. ñi nga xam ne ñoom laa tollool génération aussi tamit maa ngi leen di sant di leen gërëm ku si mel ni doomu dàng suñu tëdd fil suñu grand ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax gàmmu gay aussi tamit suñu champion suñu grand ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax Baye Nder dof bi ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax di ko gërëm sama grand Zambala jógee ba mbaa kooku sama deret la sama sang Boy Diop sama doom yaay aussi tamit maa ngi koy sant di sant Zungule may na ma xaalis bu bare bare Tidiane Faye maa ngi lay sant bu baax baax a baax a baax Ndomar sama doom yaay depuis ba boobu ba léegi xoolal mu ngi jàpp bu baax say jàmbaar aussi tamit maa ngi sant bu baax baax a baax a baax fan si club Karbala bi aussi tamit jigéen ñi gis naa seen liggéey bu baax a baax a baax maa leen di sant bu baax di ko teg si loxo Momo ak lolo waaw Papa Yado aussi tamit sama rakk ji sama fils la boobu maa ngi koy ñaanal aussi tamit si combat bi day bëre mais instant daa nekk si ay yitte moo tax di ko ñaanal ndam bu baax a baax a baax te day am ndam day ñëw tijji baal bi mu leer ñëw xaale ñu jàll incha allah si kàttan Karbala gars yi nee nañu Karbala dafa mën a mobiliser waaye ku xam Feugeula bu Ngor ci mobilisation ku xam Feugeula bu Ngor ci mobilisation day mobiliser lu bari Feugeula bu Ngor léegi nag le promoteur Mor Diouf daf leen jël boole leen ñenn ñi nee nañu am nañu wax ne mobilisation yaa fëgale bu ngor combat la avant combat kan mooy ëpp looy mobiliser. soo ko ngeen dégg dëgg man loolu moo nga dégg ay ree la may def samuraay man lañ bëgg samuraay man lañ tom sama yaay sama yaay booy kontaan naa bu baax a baax ci moo yaay say jàmbaar billaay sama yaay la ba yaay di ma conseiller si lépp lépp lépp lépp lépp sama les autorités de Rufisque les autorités de Rufisque gis nañ la présence remarquable de monsieur le maire Omar Cisse. ñëw na fi teew l'inter euh, euh, le joueur Paco Boy ñëw na fi teew mais li ci des tamit parce que mbaru Rio yi mbaru Tëngéej ji bari na ci ñu may toogal ñu ne ma Seydina leen la ñu manqué man leen lan ñu ne ma soutien le soutien donc il est temps nga yuuxu wax ko ca kaw autorité Rufisque yi ñu ñëw jàpp ci comme monsieur Omar Omar Ciss ni mu ciy jàppee monsieur Omar Ciss monsieur le maire ni mu ciy jàppee ñoom tamit bu ñu xaar ku leen ci woo mais waxal ak ñoom ñu ñëw jàpp ci combat bi jàpp ci ticket yi jëndal la am na mbër bu bu war a bëre samedi 30 bloc ticket la jënd kon Karbala war na mën a jënd 30 bloc ticket normalement ñu ñu carré la 50 car gérer bi gérer gérer gérer euh, regroupement bi jour si nga war a rallier arène nationale arbitre war a ciblé génn sa diggante ak Feugeula bu Ngor woo les autorités ñu ñëw jàpp ci combat waaw loolu lañ soxla ñun mbër mu ndaw la te Tëngéej dañoo yaakaar mbaaw bari dañoo yaakaar am ñu fu ñu teg bu baax a baax a baax bañ xam ko. moo tax incha allah ñu ngi woo ñëpp si mobilisation xam nga di si woo aussi tamit docteur Abdourahmane docteur Abdourahmane Diouf ñu ngi koy woo bu baax a baax a baax si combat bi Paka Boy ñu ngi koy remercier bu baax a baax a baax a baax a baax di ko woo aussi tamit Aline Mousse Aline Mar aussi tamit ñu ngi koy woo bu baax a baax si combat bi Babacar Ndiaye TFC ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax si combat Père Amady Gadio Cissé tamit ñu ngi lay woo si combat bu baax a baax a ministre Ismaïla Madior Fall ñu ngi lay woo si combat bi soxla nañ ko bu baax a baax a baax suñu nawle la lañuy fekki yéen blog rek ay doomu Rio ngeen doomu Tëngéej ngeen ñun Tëngéej la ñuy représente yéen da ngeen war a ñëw jàpp si affaire bi booy bëggoon nañ dem mais dañ amul moyen yéen yéen a si war a mën a jàpp ay Balla Gaye fi ñu toll nii dañ leen jàppale wallaahi billaahi boo leen ñu jàppale ñu romb leen duñ fa duñ fa toll dañ leen di romb jàppale leen ñu bu baax a baax looy tëjee looy tëjee rendez-vous dimanche lan ngay tëjee am am sama probi bi bi maa ngi koy woo bu baax a baax a baax a baax François Badji aussi tamit ñu ngi koy sant di ko gërëm aussi tamit ah aussi tamit euh, di sant waa direction bi bu baax a baax a baax a baax a baax di jël nuyoo bi di ko teg si loxo Amza Sakor Fall ak Ndiancho ah Papa maa lay sant laay maa lay sant bu baax sama fils di sant Omar Ndoye xam nga ñoom Cheikh Tidiane ñoom Pape Samba ah waa tous tasar mool yi leen fàtte barki borom Touba du leen mos a fàtte Baye Fall waa Mbacke Fall waa Mbacke Fall aw seen fay di sant jigéen ñoom Marida ñoom Mama ñoom Aram di sant ñëpp maa ngi sant ñëpp di leen gërëm aussi tamit ku ma limu rek Mbaye Cissé Faye Mbaye Cissé sa taxawaay bu baax a baax si ñun ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax a baax a baax a baax Ziza Sock aussi tamit ñu lay sant iti ma boote tamit ñu lay sant ñu Babacar Laye Zage borom borom borom Dubaay aussi tamit ñu ngi lay sant Fatima Ba waaw Podaba Podaba waaw Podaba boo Jakarta maa ni bàyyi ñu kenn ku ñu limul rek dañoo jum maa sama maa sama coiffeur le jeune coiffeur du peuple loolu laay toog dëgg naa ñëpp sant na coow leen Colobane Mengo Pédé Kër Kaw waa sama maam père Onge Mamadou boobu may seetlu loolu. Saltel Mane waa a wóor yi ah ñoom a ñoom Ameth mafia boobu noonu Aliou Abdoulaye.